Euh, la première lecture est tirée du livre de l'Exode, chapitre 32, versets à 11 13 à 14. Amen. Lecture du livre de l'Exode. Moïse était encore sur la montagne du Sinaï. Le Seigneur lui dit, Va, descends, ton peuple s'est perverti, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte ils n'auront pas mis longtemps à quitter le chemin que je leur avais prescrit. Ils se sont fabriqués un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant, Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Le Seigneur dit encore à Moïse, Je vois que ce peuple est un peuple à la tête dure. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les engloutir. Mais de toi, je ferai une grande nation. Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant, Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par la vigueur de ton bras et la puissance de ta main. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Jacob, à qui tu as juré par toi-même. Je rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays que j'avais promis, et il sera pour toujours leur héritage. le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, chapitre 1, versets 12 à Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Je suis plein de reconnaissance pour celui qui me donne la force Jésus-Christ, notre Seigneur, car il m'a fait confiance en me chargeant du ministère, moi qui autrefois ne savais que blasphémer, persécuter, insulter. Mais le Christ m'a pardonné. Ce que je faisais, c'était par ignorance, car je n'avais pas la foi. Mais la grâce de notre Seigneur a été encore plus forte. avec la foi et l'amour dans le Christ Jésus. Voici une parole sûre et qui mérite d'être accueillie sans réserve. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et moi, le premier, je suis pécheur. Mais si le Christ Jésus m'a pardonné, c'est pour que je sois le premier en qui toute sa générosité se manifesterait. Je devais être le premier exemple de ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Honneur et gloire au roi des siècles, au Dieu unique, invisible et immortel, pour les siècles des siècles. Amen. Parole de Saint Luc, chapitre 15, versets à 32. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors, Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a cent brebis et en perd une, Ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve Quand il l'a retrouvée, tout joyeux, il la prend sur ses épaules et, de retour chez lui, il réunit ses amis et ses voisins. Il leur dit, Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, une femme a dix pièces d'argent et en perd une, ne va-t-elle pas la maison et avec soin jusqu'à ce Quand elle l'a retrouvée, elle réunit ses amis et ses voisines et leur dit, Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Jésus dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. Et le père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, Une grande famine survint dans cette région et il commença à se trouver dans la misère. Il alla s'embaucher chez un homme du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il réfléchit. Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de pitié. Il courut et se jeta à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses domestiques, Apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le. Mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent la fête. Le fils aîné était au champ. À son retour, quand il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des domestiques, il demanda ce qui se passait. Celui-ci répondit, C'est ton frère qui est de retour, et ton père a tué le veau gras parce qu'il a vu revenir son fils en bonne santé. Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père, qui était sorti, le suppliait. Mais il répliqua, Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais désobéi à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est arrivé, après avoir dépensé ton bien avec des filles, tu as fait tuer pour lui le veau Le père répondit, Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait bien festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. bien-aimés dans le Christ, euh, amis croyants, vous suivez toujours votre émission aux sources de la vie ci Téeni Dund gi. Aujourd'hui donc en ce 24e dimanche du temps ordinaire, aujourd'hui si je devais poser une question, c'est-à-dire euh, vous vous vivez en Occident, vous êtes là en Afrique, on, on voit nettement que ces deux euh, ces deux mondes, j'allais dire hein, vraiment différents et on a l'impression qu'en Occident les gens ont perdu la fois Ici, en Afrique, les gens voilà, sont, parlent beaucoup de Dieu. Yàlla Sénégal su rawatina Sénégal looy wax rek dañuy waat ci yàlla ndax dañoo dañoo jël yàlla teg ko vraiment fu kawe kawe est-ce que loolu dafay méngoo ak lu ñuy dund. ah loolu lañuy ñuy ñaan kat dañu ne ku wax yàlla. waaw nekkal yàlla. parce que yàlla dafa sell ñun sell ñu mais dañu oo ndax ñu mun a nekk ñu sell te lan moo ñuy sellal. mooy topp lu ñu yàlla wax. mais bu ñu jëlee ñun kerce yi est-ce que ñun ñu ngi topp li yàlla wax. waaw foog naa ñu ngi koy topp mais du doy amul mi parce que vie éternelle yemul fii. mais lan la ñu war a def. li ñu war a def mooy bés bu ne ñu xayma suñu bopp xoolal suñu bopp fan laa toll suma diggante ak suma xarit ku tudd Yesu Christa fan laa tollu suma relation moom. tey lan la ma tere te maa ngi koy def tey lan mooy suma faiblesse lu may tere ma dox ni mu ko bëggee bu ma xaymaa loolu ma dem ut guide spirituel ma dënk ko suma bopp na koy jàppale ma ndax ma mun a yegg fi ma borom bi yéegale kon da nga yaakaar na guide spirituel lu am solo la ci dundu chrétien ah xam nga ku feebar yaa ngi dem seeti docteur te docteur sa yaram la faj ma mënul mun a faj sa ruu ruu yàlla moo koy faj te yàlla jaarale na ko si prêtre bi parce que prêtre bi tey moo fi taxawal borom bi Jésus la mu defoon tey prêtre bi mun na ko def parce que may na ko kantaan boobu à mon nom vous guérirez les malades la wax amoon mon nom vous chasserez les démons à mon nom si turam du si prêtre rek mais si turam parce que moom moo fi toogal yàlla tey te kooku baax na nga dem seeti ko xool sa dund fu mu toll wax ma confessé sax mais nga dem entretien ne ko suma doom kat temps yi daf ma xaw a jaaxal nu may agir suma jëkkër suma jabar suma dëkkandoo kooku daf lay xelal te du la wax lu bon du la teg si yoon bu ñaaw bu la naree teg si yoon bu ñaaw dawal parce que kooku du du bu baax. Euh, am na benn mees bu ma fekkee woon nga jàng euh, ci sa homélie ci sa xut ba danga laaj fidèles yi euh, lan la Léonce lu dimanche dernier wax. Mhm. mu mel ni daanaka kenn tontuwul. Mhm. dafa mel ni duma wax ne métti na la waaye xaw nga ci rus. Euh, loolu lu muy tekki dafay tekki ne chrétien ndax li leen di xubba euh, dimanche dafa matul wala ñoom ci seen jëm bopp ñoo dul gestu ngir mën a xam parce que diggante dimanche ak dimanche euh, guddul mhm. waruñ si mënuñu mën a fàtte l'évangile bi ñu bi ñu bi ñu bi ñu jàng man bu may door mes damay laajte nit ñi fan la ñu toll woon dimanche passé pour fàttali leen parce que yëpp benn la ba ma laajtee dimanche passé la ñu bëri tontuñu am nañu am ñu ça veut pas dire xamuñu mais ñu bëri dañ doon ruus voilà parce que peut être tàmm ñu defin boobu le mhm. mais kàddu gi Jacques Moussela mi dafa ne buñ ko nekk di déglu kese nañ si dundee te kàddu gi dafa nekk lekk ku ne bes bu ne yaa ngi lekk parfois ñaari yoon ñetti yoon ou même lu ko ëpp mais kàddu gi est-ce nañ koy lekk est nañ liir kàddu gi aw ma jot tey si téléphone bi mun naa télécharger suma bible ma lire ko pourtant ñu ku bëri ñu bëri si ñun am nañ téléphone ñu ngi lire SMS est-ce que dinañ xëy njëkk a liir lire verset du jour mun nañ ko am c'est gratuit télécharger ko gratuitement mag yi ko jàngul mun nañ jël seen saplet c'est une manière de vivre de l'évangile parce que c'est le mystère du Christ et donc kooku tey boo demee ba sa ba sa nga xam la écriture lu mu wax mais mu sa ngëm day dem kanam parce que la foi vient de ce que l'on entend ce que l'on entend c'est mais tey kooku ne boo demee dimanche rek labe bi wax na yàlla bu la labbe boobu soof nag <laughs> labbe diw nu ma soofee kooku lu may wax doo ko mun a dëgg mhm. même bu la waxee benn ak ñaar mooy ñett doo ko gëm parce que instant sa xol nekkul ci moom yaa ngi gis si moom lu gàkk-gàkk te no xel mu sala mi mooy ñëw amul mees boo dugg tey te amul lu changé si yow amul ku dund mees bu ne bes bu ne am na lu sàkk lu soppeeku si yow mais est-ce que gis naa ko est-ce que xayma naa ko mais kooku dafa baax ñu waxtaan c'est que yi ñu xam parce que tey ne maa ngi dem mees mees nekkul kese dangay ngay dem parce que dimanche la mais damay dem pour dee pour changer dund du man mais yàlla moom may soppi dama ko ubbil suma xol xam nga koo ubbil sa kanam mu ñeme la et donc si yàlla boo sa xol mu ñëw dëkk parce que mu ngi dëkk ci yow mais nañuy doxalee nañuy defee mun na ñaaw ñaay boo xam ne day wàññi doole xel mu selami si ñun du xel mu selami ñun ñoo koy tëj bunt yi xam nga ku tëj buntam moom mënoo fa dugg te mu ne man maa ngi si bunt kër maa ngi fëgg boo ma ubbilee dinaa ñëw apocalypse 3 20 boo ko ubbi leen dina ñëw mais est-ce que bu may dem mees dinaa ñaanal labbe bi est-ce que bu may dem mees dinaa ñaanal ñi mu fay dajal yépp ndax la tax ñu jog ñu mun sa jëlee lu bëri laajal kerceen ñu bëri ñu ko def te pourtant ñu ko war a def parce que labbe bi avant muy commencer day ñaan mees parce que xam na day dem dee pour joxe boppam jébal boppam nu yeesu jébalee boppam si calvaire loolu mooy mees. ma léegi problème bi fu mu nekk lu tax depuis ñun bi ñu xamee mees ci joolaa ci séeréer ci njaago. Euh, ci wolof ñu ngi jàng mees donc kàddu yàlla dafa leer. dafa leer dafa leer mais lan mooy lan moo tax ba chrétienu léegi euh, li nga wax dëgg la dañu ñu ñu ci ñi ñu def émission dañ koy dañ dañ faral di jànkonteel yu kii lan moo tax chrétienu léegi boo leen waxee euh, firndeel lebaatu bi firndeel kàddu yàlla bi xamul sax fuñ ko bind. est-ce que pédagogie bi moo baaxul. wala jëm ñoo nanguwul jàng. xam nga tey ñu ngi si nawet. waaw mu ngi taw boo toogee sa kër demoo tool doo góob waaye buy taw boo demul jiw doo góob donc yàlla kàddu baa ngi fii et livre bi moom rek la ñuy wax celui qui lit bienheureux est-il apocalypse loolu la commencé heureux les auditeurs de ce livre heureux ceux qui vont se de la parole parce que parole c'est une mais xam nga ku xiiful moom munoo ko forcer lekk dafa nekk loo xam ne ñun dañ si war a geestu mees doyul mees ndaje la ecclésia ndaje la mhm. yow nga ñëw ak li nga nekk ma ñëw ak li man ñun ñëpp ñu booloo suñu xol nekk benn ñu yëkkati suñu tagas mu jóg si kaw ngir yàlla mais kookule dafa aaju lan ma xam si lu mu sukkandikoo mais mun naa dem Marc moo gën a gàtt si évangile yi mun naa dem liir Marc mbala dimanche bu si topp du ñëw ma xam tey lu ñuy war a wax mun naa si suma famille ma def partage de l'évangile suma biir quartier mun nañ fa bés bu nekk si sa ayu bés bi ñu def partage de l'évangile waaw loolu day am sax day am mais lu tax duñ ko def nañ koy def loolu day suuxat suñu ngëm gen ñu jox doole ñu gën a xam kàddu yàlla suba ku la ne kaay jaar fii nga jaar fële nga ne ko bible waxul loolu mais bu leen ku la ne ah lii ñuul na lii xees la xamoo sax fan lañ ko waxee xamoo fu ñu ko tënkee xamoo si lan la ku la gën a jàng ñëw réciter la ay versets nga foog nag moom moom moo xamul. mais on sent nettement que euh, fii nit ñi xiif nañu xiif nañu kàddu yàlla. xiif nañu ko léegi comme xiif nañ nañ dem dund nañ ko dem lekk nañu dem jënd bible tey ku ne yaa ngi jënd jiin ñii dàll école yaa ngi ubbi ku ne yaa ngi toppatoo sa cartable doom mais kan mooy xalaat jënd bible pour famille bi waxuma sax pour benn pour famille bi ñaata chrétien ngay dem seen kër gis bible ubbeeku xanaa ñu nekk renouveau bu weesoo loolu day doy waar nañu xoolaat suñu nekkinu chrétien xool lañu ñu mën a yóbbu kanam ñu ngi bàyyi suñu loxo mu ngi bàyyi suñu diine. Euh, yow mun nañu wax ni euh, ndakaaru nga màggee euh, xam nga Sénégal moom munoo fi dëkk te dëkkoo say morom jullit yow am nga xaritu musulman. waxuma sa xarit rek am na ay rakk ak ay mag musulman xam nga Sénégal dafa nekk modèle unique à travers le monde si àdduna bi yëpp ñoo xam ne lu ñuy wax dialogue interreligieux. Sénégal la am ak Liban ñaar ñoo leen les modèles au niveau mondial mhm. li am Sénégal amul fenn donc lu ñu boole ñun nekkul diine d'abord lu ñu boole mooy deret mhm. moo ñu boole et donc deret boobule diine mënu ko yàq diine def ko war a oyofal defar ko rafetal ko te loolu moo tax ñu wax diine parce que diine bu ñëw di xaajatle ko ku nekkatul diine dëgg la diine buñ commencé xaajatle ni di wax diw ko ku nekkatul diine diine day ëmb boole ñëpp parce que yàlla moo tax diine am et donc tey baax na sëriñ bi aussi xam ko Jésus sëriñ bi dañ ko war a toog expliquer ko pas pour mu tuub nekk catholique pas pour mu xam parce que ku dem ba dee pour yow kooku da nga ko war a delloo njukkal te sëriñ bi mu ngi ñaan mais bu ñu xamoon kuy Jésus du instant de parce que instant lu ñu wax si moom si alxuraan dafa tuuti instant dafa dépassé loolu ñoom nañ ko gisee comme prophète Jésus est plus qu'un prophète il est mort il est ressuscité mm. pour ñoom boo xoolee seen diine dañuy a kooku xam nga dialogue baa ngi commencé xëjam mhm. et tenk donc nga wax sëriñ bi tey Jésus def la bëgg be dee pour yow walaay dina am lu changé si dundam pas pour moom mu nekk chrétien parce que ñëpp chrétien lañu ñëpp chrétien lañu parce que ñëpp Jésus moo leen sobe amul mbindeef si adduna bi koo xam ne yaa ngi dox si tànk si fii si adduna te Jésus sauvé wu la te kenn du dugg arjana te jaaroo si Jésus kooku dafa leer et donc kooku li te ñëpp d'accord nañ dina ñëwaat kooku bu ñëwee kañ commencé di koy xam mu sa xarit dina baax donc baax na aussi ñun évangélisation nekkul dem wax ak chrétien yi kese mbindeef bu ne muy sëriñ baag muy muy gourmet baag mu koo xam ne gëmul ak dañ ko war a wax que yàlla def la bëgg ba yónnee la doomam kooku bëgg la ba dee pour yow ndax si say baakaar say tolof tolof nga mun a am dund gu dul jeex. te Yeesu bu muy euh, musal àdduna amuloon catholique amul amuloon jullit. bu muy dee dafa ne pour ñëpp kat chrétien mooy ñi nga xam ne dañ ko topp am nañu ko toppul. parce que juif yi am nañu ko toppul mhm. si juif am nañu ko topp mhm. am na aussi diine mu ngi continuer am na yeneen diine tey ay sëriñ yu bëri ñu ngi fi ainsi de suite ay bouddhisme mais ku ne yaa ngi dox mais ñooñu ñëpp dañuy daje si Jésus parce que moom mooy sauveur des hommes amul keneen kuy kuy muccal ci dañuy wax nii rek kenn mënul musal kenn kenn rek mooy musal kan muy Jésus Christ kooku moom def lu leer la mais nit ñi baax nañu woon ñu xam loo leen loolu mais dund ko aussi parce que Yeesu musal na ma te bu ma déggee suma koñ maa fay jiitu si lu ñaaw kooku du modèle ak Sénégal ba muy neex chrétien da nga koy seet xàmmee ko ah kii de gourmet la parce que du sàcc du dugg si loonam nekkul xam nga tey bu ñu dee bëgg a ñàkk loolu ñu ngi bëgg a nasal ñàkkal fayda diine bi. et mais lu waral loolu lu waral loolu. mais toppandoo xam nga booy toppandoo da ngay yees dañ loo nekkul nekkuloo ko loo xamul xamuloo ko loo mënul mënoo ko mais boo bëggee toppandoo rek yaa ngi bëgg a yees te tey chrétien kenn rek la war a toppandoo mu Yeesu Christa prenez-moi pour modèle. Paul dafa dem bi wax loolu pourquoi parce que Paul dafa nekk mu nekkatul Paul mais Jésus mooy dund si Paul Paul le prenons comme modèle lu tax parce que modèle dañ koy roy te tey gisuma ku mun a sell sell si adduna bi beraw Yeesu beraw Mariama amut et donc ñooñu tey bu ñu demee bi ñu nekk suñu modèle ñoom lañu war a roy parce que xam nga ni taxaw si écran télé di lay xutba di lay wax loo xam ne moom si boppam gëmu ko amul sens. Mm-hmm. te bëri fii dafa bëri ñuy jëriñoo yàlla. Mm-hmm. ñuy jëriñ yàlla bëriwul ñu nañ nag. parce que yaa ngi oote yàlla yaa ngi oote diine mais yaa ngi def luy lor jàmbur. Hmm. yaa ngi respecté wul keneen kooku nekk est-ce que am nga diine est-ce que loolu diine la fu ñu ko amul diine mooy lu lay takk ci yoonu yàlla nga baax suñu maam yi fi nekkoon yëpp duñu baax suñ tuubaa ku baax la woon dafa dund yàlla mais tey da ngay dugg si marché nit kaa ngi waat si suñ tuubaa te day fen xam nga kooku mu ngi rusloo Bamba mm. kii jógee fële ne man nii barke Serigne diw te la mu wax tegu fa mais xam nga loolu day dem ba jaxas xel yi finalement ñu neewal doole diine bi or du dëgg kenn rek mooy musalkat mooy Jésus Christ te kooku dafa musal ñëpp boole ñëpp parce que mu ne je vais pas perdre une seule brebis et j'ai d'autres brebis qui sont pas de ce lu ñu war a def mooy ñu boole xool yi doon benn parce que Sénégal benn Sénégal la du ñaar du ñett te Sénégal Sénégal lu diw du Sénégal lu Massamba du Mademba Sénégal lu ñëpp la mais ñun dama bëgg ñun chrétien ñu yeewu quoi nañu yeewu ñu xam que diine bi bu ñu waxul ñun ñooy leer Sénégal bu leerul parce que chrétien yi leeruñu ñun ñoo war a wane que xorom lañu ak leer tuutiwuñu neewuñu mais dëgg da koy wax ak na nga koy waxee ak fa nga koy waxee et donc nañu bàyyi di jëriñoo yàlla nañu jëriñ yàlla yàlla ku ko jëriñoo di rus parce que di nga jàkkaarloog moom say jëf wane du dëgg mais boo ko jëriñee di nga jëriñu alors euh, amoon na benn question nee naa bi ñuy waxtaan balaa émission bi am na question yu bëri ñu jot yoo xam ne dañ ko jagleel ci mbirum sëy mariage ci mbirum euh, euh, veuvage funérailles affaire u dëj ak yooyu yëpp am na benn question boo xam ne benn xale bu jigéen daf ma ne ma laaj la ci mbirum mariage la ko waxe mu ne xam na ne Sénégal musulman ñoo ci ëpp donc ñoom léeg du ñu mucc il faut mu am léeg ñu am euh, xaritu euh, euh, xarit bu góor musulman wala xarit bu jigéen musulman te jàngu bi dafa mel daf ci xaw a dëgër tuuti ci ci mariage avec disparité de culte lii nit ñi di wax mariage entre musulman ak ak chrétien lan la ci làbbe bi xalaat ben xam nga mbëggeel kenn mënu ko dicter sa rakk ñëw ne la ou sa doom ne la dama bëgg a diw dem leen ñaanal ma ko mu nekk sëriñ kooku mbëggeel mbëggeel la mënoo ko ne déedéet doo ko nopp kooku kooku boo ko defee respecté wu sa doom te dañ koy def fii si dëkk bi du dëgg hmm. kenn mënul imposer kenn mu takk kenn loolu loolu du dëgg du yàlla santaane ko nit ki nag bu la bëggee ngeen ngeen bëggante est-ce que seen amour pare na pour ngeen dund ko na mu waree tey nga nekk xale bu jigéenu chrétien wax ñu ah chrétien ni kat ñoom duñu gaaw a sëy gis naa benn Modou bu ma bëgg Modou bëgg na la mais est-ce que Modou bu ñëwee man fekk sama labe dem ko ne ah kaa yëgseel ak jàmmoon su ma doom nga bëgg dina la ko may mais maa ngi lay ñaan que doo ko tuubloo parce que boo ko tuubloo ci lu respecte pas respecté woo ko faalewuloo ko fulaloo ko doo imposer ay doomam ñëpp ñu doon sëriñ parce que bu voilà am nañ droit aussi bëgg dem chrétien est-ce que nangu nga loolu waaw et puis sëy du pour ñaari jabar ñetti jabar benn jabar kese la on peut pas bëgg nit bañ ko donc monogamie bu dakkoo ñetti principe yooyu ñu bind suñu bàyyi évêque laajte ko mu may ñu lu ñu wax autorisation ñu mun a célébrer xew boobule ndax ki nga xam ne mooy chrétien mun a dund diineem xam nga sëy ñun Sénégal fii dañu oyofal sëy dañu dem ba cosaan bi sax moo moo yóbbaale yëpp dañu ne ah sëykat jigéen dafay war a sëy jigéen mais sëy ñëpp a ko moom muy góor muy jigéen benn loxo du tàccu tey nga bëgg a xale bu jigéen mu nekk catholique nga xam ki catholique la nga dugg këram ñu accueillir la nga dem sa kër nga imposer ko ne day tuub kooku du respect du respect te dañ koy def fii kooku si un crime parce que ki tax ki ngay tuub loolu lu tax koy tuub leexu gën bëgg nga ko am bëggloo ko boo ko bëggee nanga ko si lu mu doon mënoo bëgg a soos kañ bañ ñeex ba <laughs> non mënul lekk moom da ngay ne lii bëgg naa ko mais bañ <laughs> mais non loolu la ñu principe donc non contradiction mënoo bëgg li bañ ko si même plan bi et kii bëgg naa la wante la nga nekk boo saggee ne ma takk la kooku pour kooku chantage affectif lañ ko c'est pas de l'amour te te bu mu lay gis ba bëgg la li nga nekk moo tax. li nga doon moo tax te fañ la yare moo tax parce que tey ku ne xam na yaa ngi bëgg a bu baax nga dem fëgg kër chrétien ñu ma ñu may la jabar yaa ngi bëgg a nekk yaa ngi gis benn soxna bu baax nga dem gis waajuram ñu ne ah suñu doom kat dinañ la ko may mais à condition nga tuub mais ñooñu dañ lay yab dañ lay yab respecté la lu tax ñu lay tuubloo dañ lay yab. amour amul couleur amour amul diine amour amul xeet. donc mais lu tax duñ ko wax ci télé bi mu leer lu tax duñ wax loolu lu tax ñu bëgg la tuubloo lu tax ñu bëgg la baptiser lu tax ñu tey boo buggee sëriñ bi tant que waxul dafa bëgg a mu munoo war ko imposer mu baptiser. pourquoi pas ñun nga ñun beneen diine bugg la imposer sa diine kon kooku respecté tul amour bi intérêt lay gis te kooku c' est l' amour interne noonu lañ ko wooyee c' l' amour véritable parce que l' amour ne fanfaronne pas. L'amour ne discute pas, l'amour se reçoit et se donne. L'amour c'est un don. te mënoo joxe sa bopp nanguwaat sa bopp. ah, ah. mais boo amee jabar yu bari noonu lay demee dangay jox kii sa bopp tey suba nga jox kale sa bopp finalement dangay ngay ŋarale te ŋarale baaxul loolu moo tax diine bi ne la non boo buggee suñu doom lii ak lii ak lii ñu waxtaan si parce que mooy amul il faut nga respecter l'altérité boo ko respecté woon am relation. te dafay te dafay doy waar. day doy waar donc xale yu jigéen yi nañu xoolaat ba dëgëru nañu affaire bi. si ñoom la ëppee ah. mais si ñoom la ëppee parce que dañuy toog commencé jël âge ni ma ah gisuma kenn yàkkamti parce a mais ku sa ajuma jot kañ sa ajuma jot na ku sa dimanche jot sa dimanche jot na cëpp yemuñu am na ñoo xam ne peut-être parce que nga nekk fii nga say nga torox nga tumuranke après desul dara dul dernier jour nga ne da ngay dellu soit yàlla mu ngi lay xaar mais bul fàtte Jésus mooy sauveur ñëpp de. te loolu dañ ko war a findeel wax ko nit ñi ñu xam ko parce que erreur la dañu xamul ñu bëri dañu jàngul mooy li mu la doon wax catéchisme bi dañu def confirmation rek jeex na pare nañ si mais dañuy dem au nom du Père la paix du na mais dañ ko <laughs> dund relation la parce que chrétienne de nekkatul sax diine relation ak nit la ak le Christ ah am na solo am na solo xam naa dinañu dellu siwaat ci ci question yu bëri yu mel noonu Euh, mun ngeen continuer di di question euh, ak adresse mail bi affiché actuellement ci écran bi wala ngeen oote ngeen yónnee SMS aussi ak numéro téléphone bi bi bi affiché ci écran bi bien-aimés dans le Christ amis croyants vous suivez toujours votre émission aux sources de la vie ca Teen Dund gi nous allons terminer avec ce dernier point euh, on va tout simplement demander aux prêtres parce que c'est un c'est un point qui est très vaste et qu'on ne peut pas épuiser vraiment euh, au cours d'une émission. Mais nous allons tout simplement demander aux prêtres de, de, de, nous accorder deux à trois minutes pour parler un peu du combat spirituel. Alors mon père, c'est quoi le combat spirituel Si vous devez résumer ça. Le combat spirituel, c'est la mort à moi-même pour être tout à Dieu. Mourir à mes convoitises, mourir à tout ce qui est obstacle à l'avènement du royaume de Dieu dans, mon, dans ma vie. C'est pour ça qu'on l'appelle un combat. Et donc je lutte d'abord à l'égard de moi-même. Je lutte contre les principautés, les dominations de ce monde, comme nous dit Paul, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas de Dieu, qui est l'esprit maléfique. Et je lutte aussi pour les autres, parce que je fais partie d'un corps, je suis membre d'un corps. Et donc cette lutte, est, elle est grande. Mais cette lutte, Jésus l'a déjà remportée. Il a remporté la victoire. C'est ça notre assurance. On lutte, mais on ne lutte pas seul. Comme dit le, le Seigneur dans le livre des, au au chapitre 20, ce combat n'est pas le tien, c'est mm. mon combat. Et quand Dieu combat pour nous, qui est contre nous, comme dira Paul Si Dieu est avec nous, qui est, contre nous Et ce combat spirituel, c'est ce renoncement, comme nous le dit Jésus dans l'Évangile, combat. pourquoi faire un combat est gagné d'avance Le combat est gagné d'avance parce que nous sommes dans le devenir. nga mm-hmm. mënul banque sa loxo rek nga ne jeex na jeex na xam nga tey añ nga ba suur mm-hmm. ah di reer mënoo ne ah lekkoon naa dem kat tey du ma lekk non c'est un combat donc on est dans le devenir et on devient de plus en plus sain à travers ce mystère de la grâce divine et donc plus la grâce va prendre notre nature humaine va élever cette patte comme on l'entend dans l'évangile de Matthieu mm-hmm. plus cette part est élevée plus elle peut se sanctifier et donc c'est un combat au quotidien. Comment reconnaître que moi j'ai un combat à, à mener Mais il n'y a pas à reconnaître, c'est automatique. Parce que je suis pécheur. Le combat, c'est contre le péché. Et je suis à l'origine de mon péché. Les autres l'ont aussi, et d'autres principautés, parce qu'on ne pêche pas seul. On pêche toujours sous l'emprise du mal, du prince des ténèbres. Et donc, c'est un combat, parce que les gens ont toujours peur quand on parle de combat spirituel, ils pensent aux démons, aux sorciers. Non, le combat, c'est d'abord en moi. Et ça, c'est tellement beau. avec ce, ce, ce, ce grand théologien et, et, philosophe arabe, quand il va parler du, du djihad intérieur, mm -hmm. il a beaucoup développé cela, le djihad intérieur. Mais c'est ça, c'est ça le combat spirituel. Mais en moi, je quitte tout. Et ça, ça a été commencé par le père du désert. Antoine et tous les pères qui l'ont suivi après, ils ont développé cette mortification. Beaucoup disaient la, la, 16, la, 16. la pénitence. Mmh. Et voilà, c'est des moyens de combat pour faire face à moi-même, à tout ce qui est penchant mauvais en moi, qui m'incline au péché, pour que moi, étant libéré de ce péché, je puisse m'ouvrir à la grâce et vivre pleinement sous le regard de Dieu. Y a-t-il des armes Il y a des armes. Les armes, on les trouve dans Ephésiens chapitre 6. Paul en parle. Bon, comme le temps ne le permet pas de ça. les développer, de voir de quoi il s'agit, mais il y a cette armure. Cette armure que, que Paul décline parce que Paul connaît très bien le combat. Et toute vie chrétienne est une vie de combat. reprenez le, le, verset pour que. Et donc, fidèles... Bobé, dans tout ce qui écoute, c'est l'occasion oui, en même temps ça. de mettre en pratique ce qu'on vient Exactement. de dire. C'est Éphésiens chapitre 6, je vais passer tous les versets. Et donc, Paul va parler du cuirasse, du casque du salut, des souliers, de la ceinture, de l'épée et tout. Eh bien, allez lire ça. Ça va aider aussi de, de pouvoir voir Éphésiens au chapitre 6. Éphésiens au chapitre. Je vais pas dire tous les versets parce que là c'est l'occasion de de prendre de le de alors bu ko waree tënk ci wolof. bu koy tënk ci wolof combat spirituel mooy la. bëree combat spirituel mooy loo xam ne maa ngi daw baakaar ndax ma mun a nekk ku sell. Hmm. et donc booy daw kañ di nga xiixat di nga sonn loolu mooy combat combat bi maanaam damay xeex loo xam ne mu ngi ci man nekkul lu yàlla bëgg maa ngi koy def maa ngi koy xalaat maa ngi koy wax kooku dem koy moytu déjà kooku dafa métti. léegi am na beneen compa boo xam ne ay nit ñoo ma ko teg ay tolof tolof xam nga nit nag foo la ñu foog nii ah diw moom a liggéey non parfois liggéeyuñu la loolu bëri na moom ci nit ku ñuul waaw mais indi dañu ne diw la ku xees la ku ñuul la moo tax it sëriñ ñi ñu fay nekk di jaxase di def musiba parfois yow la parfois sa cosaan la parfois sa dëkk la parfois sa réew la parfois adduna bi la sa njaboot mais loolu dañ loolu moo tax man ne la guide spirituel dafa am njëriñ am na tey boo looy dund xam nga tey nga feebar ñoo ne dama seet docteur di ku aay la kooku déjà tu es soulagé tu es guéri à plus forte nga am guide spirituel ngay dem wax ak moom est-ce que lii dëggantaan combat la est-ce que say maam ñoo lay sonal cosaan sa aada est-ce que dëggantaan lii du sa bàkkaar est-ce que du sa bàkkaaru dëkk parce que parfois aussi on est on porte le péché de l'iniquité du monde avec le Christ. ah loolu de loolu doy na waar nee naa leen euh, thème boo xam ne dafa vaste ba nga xam ne euh, ñàkkul ñu dellu si ci. Euh, fi may daanalee rek mu balaa làbbe bi di ñaan ndax euh, dinaa ko bàyyi mu deux minutes mu ñaanal dëgg dëgg dëgg euh, ñun ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi suivre émission bi ñu koy suivre ak ñu koy déglu parce que mun nañ ko jàpp tamit ci rajo bi 88 point ñu koy déglu baax na ñi nga xam ne dinañ ko suivre ci internet à travers YouTube ba tey baax na ñaan bu muy ñaan ñëpp la ñi koy dégg ak ñi ko dégluwul loolu lu am solo la euh, ba tax na ñun nee naa ci jël benn euh, ndorte émission bi ne dañ ko war a ñaanal euh, ñaanal ko ndax vraiment lu muy liggéeyam meññi doom doom yoo xam ne moom la yàlla bëgg ndax lu am solo la ñaanal làbbe la dañ koy fàtte dañ koy fàtte de waaye bu dee xas làbbe bi moom <laughs> ay nañ ci ne làbbe bi dafa soof làbbe bi moom kenn xamul lu mu wax tey labbe bi lii labbe bi laa waaye est-ce que labbe boobu dañ koy ñaanal ndax su fekkee ci li mu nekk lu bon la mu daal di soppeeku euh, loolu lu am solo la te loolu dañ koy fàtte duñ koy def waaye bu dee xas bu dee xaste sama wolof leerul waaye bu euh, sawar nañ ci torop baax na ñuy ñuy ñaanal labbe yi ñu ñaanal leen ndax ñaanal bi maa ngi ciy insister ndax seen liggéey gën a dëgër loolu moo ëpp solo ndax li nga xam ne joxe nañ seen bopp ngir Krista mu doon dëgg ci ñoom ñetteel bi ndax bu ñu nekkoon it ci loo xam ne lu bon la ñu jóge fa loolu lu am solo la te dañ dañ ko waral di def ba tax na fi may daan lee rek balaa muy ñaan dama koy gërëm ah Père Paul André euh, dëkku fii mu ngi mu ngi béy waaram fële ca Tugal euh, dafay def rek léeg bu ñëwee Sénégal ma daal di ko këf mu ñëw ci émission bi euh, daal di waare te lu am solo la te saay bu ma ko laajee dafay dafay ñëw euh, dëgg-dëgg lu am solo la ndax Joal la jógee ak circulation bi xam nga ni mu mel waaye terewul fexe na ba ñëw mënoon na xaar ba suba mu ñëw waaye fexe na ba ñëw tey ndax ñu mën a def émission bi ndax dafa gëm lu muy def ma dolli rek nañ ko ñaanal euh, Père Paul André vraiment que Dieu vous devance dans dans dans dans toutes vos entreprises euh, qu'il les bénisse qu'il bénisse encore une fois votre ministère et qu'il le rende fécond et et qu'il vraiment qu'il vous récompense au-delà même de vos de vos attentes et de vos de vos espérances. Amen. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Et que le Seigneur vous guide tout au long de votre voyage. et Amen. tout au long de votre ministère. Saluez-nous vraiment pour nous, tous les Français. Amen. Voilà, Dieu notre Père, te disons merci, te confions notre cher Sénégal, tous ses habitants. Tu fais exception de personne. Que ta grâce surabonde dans ce pays, afin que la vérité règne dans ce pays. Éloigne de nous tous les faussaires, tous les menteurs, tous Amen. ceux qui ne sont pas de Dieu et qui se servent de Dieu, Amen. pour que la vérité qui nous rend libres puisse féconder ce pays. Parce que c'est un pays de paix, un pays d'amour, un pays religieux. Amen. Que nous puissions vivre dans ce respect mutuel sans nous déchirer. Et que ta paix, que tu as donnée à tes apôtres le soir de la Pentecôte, que cette paix descende sur nous, sur le Sénégal, sur tous ceux qui habitent dans ce pays, sur tous ceux qui suivent cette émission à travers le monde, afin que tout ce qui a été dit puisse trouver un enracinement dans les cœurs, Amen. pour purifier et sanctifier les cœurs, pour nous aider à être à être de véritables adorateurs en esprit et en vérité. Que Dieu, qui est la source de la paix, inonde le Sénégal et tous les auditeurs et tous ceux qui suivent cette émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Euh, Seculorum seculorum. Amen.